jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyuwaat di am mbégte bu baax a baax àndaat ak yéen ci différentes plateformes yi nga xam ne moom la ñu jàkkaarloog moo di euh, coow li Sénégal ak li nga xam ne moo di Dakar ñu ngi leen di nuyu di am bu baax a baax ginnaaw bu ñu li nga xam ne moo doxoon ci diggante Modou Lo ak euh, kii di euh, Yalmin bi ñu naan ko Siteu seen face à face bi ah gis nañ ci ay joxal ma jox kii naan ko da nga maa ragal kii naan ko maa la gën a xoteeku ba tax na tey ñu ngi fii parcelle jàkkaarloog ñi nga xam ne mën nañ ne fu Modou Lo jugee rek ñu topp ci ginnaawam ku mel ni Boy Dieye ki nañ ko boo ñëwee maa ngi lay nuyu di la. waaw delloo ziar gaan Vito. waaw maa ngi lay bu baax a baax. Hmm. di kontaan bu baax a baax ak di leen masaw gaan ci déplacement bi ngay def ñu seet suñu fii tey. Hmm. waaw di am kontaan bu baax a baax. Hmm. waaw parce que yéen seen fay quoi. li ñu mën rek mooy di leen remercier gaa waaw. mais tey ñu fekk leen fii ci parcelle ngeen dajaloo yéen ñëpp. xam naa ne yéen nga woon ci li nga xam ne moo di préparation boobu di diggante Modou Lo ak ki nga xam ne moo di Siteu ñu def face à face am lu mu waxee Modou Lo tontu ko naka nga jàngatee démb seen jàkkaarloo. waaw Siteu lim nim ñëwee noonu noon moom noonu rek la mën a ñëwee parce que ñun liñ bëgg ñii ñun ñoom liñ bëgg ñun ñoo ko yor quoi te Siteu nii rek la mën a ñëwee Siteu bu ñëwewul neneen lu dul nii rek waa jàmm nga dañ koy mere. Hmm? aha ñun parcelle lii moo fi am toog waxtaan naaj amul xiiroo amul ŋaay ñun ñëpp ñoo bokk xamante. ñëpp a xamante ku xewle nag ñu ñëwal la waaw ku ñu yëgul nag yëguñu la quoi mais ku ñu yëg ñu yëg la moo loolu daf ñoo jàpp wàccee boobam gars moo tax ñu jël moo tax ñu mën a sonn si moom barke Seydina ma parce que lu ne lay ñoom lu ne lu ne lu ne si mbëru ndaw yi di si ñun mooy loolu waaw ñu gis ne Siteu dafa jàkkaarloog Modou Lo ñeme ko lool ba dem na ci ñu ci bëri dañ naan ah Modou Lo suy wax dafa mel ni dafa bàyyi xel ki nga xam ne moo di Siteu na boo waxee làmb ji ñoo ko war a mën a jaay da nga war a wax ñu jàkkaarloo wax. Modou Lo ku ku ku ku xamee ku ku xam Modou dëgg dëgg dëgg di xam ne carrément Modou mënewul wax waa te Modou asib la. Hmm? aha Siteu nag daa xamul rek amaana xam na sax mais day dof doflu carrément. day dof doflu quoi. aha rek barki Seydina Muhammad ku dul Siteu sa laalax ah bu doonee taxaw doon 5 rek bu taxaw ci kanam Modou moo defaral ko moo doo leen mën fuuf gën leen xotteeku Modou amul leen lu ko waay ji jaay laa mu saf ko non non moo leen gën a dof fuuf dana tekk rek barki Seydina ma ko mais moo leen mën fuuf aller retour aa bu tegee ne lamb yi day yomb si moom mu ngi nax boppam bu baax dinañ ko dóor dóor yu métti ba pare daan ko mhm. ah, waaw mais mais Siteu ji day yomb ci moom parce que nee na day ñëw jël lim moom yóbbu ko te waa jàmm gën dañoo soxla li nga xam ne moo di courant te moom da koo fas yéene yóbbu fële ci amu fi lenn lu fi lebale wala lu fi dénkaane non non amu fi lenn lu mu fi lebale wala lu mu fi dénkaane moo loo si boobam moomul courant bi li may wax rek courant bi ñun ñoo moom ñun waa parcelle ñun ñun ke képp ku yeewoo parcelle 1 ba 26 rek yow roi nga hmm? bépp góor yàlla bu yeewoo parcelle 1 ba 26 rek rek yow roi nga quoi roi bu joxee bu joxee tat si courant bi rek dañ koy rendi barki Seydina Mouhamed Mor yow laay wax ak yow sa jëm bopp yow erreur bu ndaw rek barke alxuraan ko si lamb ji moo la du doy woo parcelle. mais lan ngay wax waa jàmm gën ñoom ñi nga xam ne jàpp nañ ne instant roi bi dugg na ba pare. ñun amuñu leen lu leen wax suñu yoon nekk si ñoom lijjanti wul leen sax ñoom li ñu war a def nañ ko def loolu ñoom la concerné mais ñun li ñu ñun li ñuy def ñun ñun la concerné quoi te ñu ngi koy def incha allah. mais bàyyiwu ngeen dara ci li nga xam ne moo di diggante Modou Lo ak Siteu ñaari booy génn ci bii yoon mu dajeeg booy bi nga xam ne moo ëpp mbooloo ci làmb ji mën nañ koo wax ëpp boo yoo xam ne ni tey maanaam ñoo gëm-gëm ci li xam ne moo di tey làmb ji defu leen benn waa parcelle ngeen toog rek la bras ñoom ñuy def di dindi yéen da ngeen a jël Modou def ko troisième âge quoi Modou ak booy ñoo maase Modou ak booy ñoo maase magee wuñ te magante wuñ dara dara dara ku ci ne carrément Modou paala na wala léegi yaa ngi nax sa ñoom seen jëm boobu xam nañ ne carrément mu leen di neex Modou moo leen mën mu leen loolu ngeen mënul dégg Modou moo leen mën fuuf aller retour loolu laa bëgg ngeen xam Modou moo leen man fuuf yéen ñi ñëpp ku yoree na nga teego ñun Modou kese la ñuy topp suñu nekk suñ si kenn suñu nekk si nit ñun Modou kese moo ñu doy barki Seydina Mouhamed ragaluñ fi ñu jëm nag tamit te Modou muy neex muy naqari si te Modou yow da ngay dégg muñal yow force da ngay muñ yow si ta Modou moo la mën moo la mën moo la dàq bëre moo la ëpp doole fuuf xamal loolu nag waaw fii ba jàmm gën laa la wax barki Seydina taxaw mooy lool mu ñuus la fii ba jàmm gën boo taxaw foo taxaw laala mu wàccee la karo yi barki alxuraanu karim billaahi wallaahi taalaay boo ko neexee sa biir Sambou Sall bien wala seen kaw terrasse ngeen bëre fa barki alxuraanu karim mu daan la ñu wane la carrément ñoo la man aller mën le retour boo ñu weddee nag laaj ñu waa Pikine ah? aa laaj waa Pikine kan mooy Modou aha ñun instant yi nii waa parcelle fii amul benn booy bu toog fii nii wala grand yi taxaw fii nii naan seen ex seen extrait ñu ngi dem mairie parcelle fii nii di ko déclaré di ko uti non non Pikine lañ jëm ñun ñëpp. koy ñun ñëpp Pikine la ñuy jëlee suñu extrait fa la ñu moo déclaré. waaw parce que mooy suñu maire. waa Diamaguène ne li nekk ci maire Pikine nekkul ci maire Diamaguène. xanaa waaw yow Diamaguène maanaam dugg Diamaguène sax tey teelaa la moo gën a yomb sax nga dugg Pikine bu soobee yàlla dugg yàmm dugu biir Diamaguène moo gën a yomb dugg Pikine hmm? waaw lii bonjour rek bonjour kong kong kong rek dugg amul intérêt hmm. nii rek dugg barke Seydina Mohamed ñoo la mën fuuf Siteu waaw dama toogi. ci cafka gi Modou Lo ànd ba pare na ko maa la gën a xotteeku ak taxaw ak ba pare na ko maa la gën a xotteeku fuuf. parce que gars yi dañoo jàpp ne carrément lamb affaire bandi la wala affaire cinq-cinq non non lépp lu ngeen di suba boo ngoon Modou dund na rampe na ko bu dee tànk yu pënd ah buuji ay sareet. taxawaali dem ci naka su lul noonu def naka su lul noonu moo di ko bu fekkee ne loolu ngeen woote comme si que loolu mooy jaar fu ne Modou jaar na a fuuf te ñun tamit ñoo leen gën a fuuf waaw kay jàppale nag yéen a gën a xotteeku waaw yow waaw jàmm waaw ay français lañ waaw ay français lañ waaw ay français fii amul kenn ku fi dugg si naan waa parcelles yi mun nga def sa vidéo nag waaw ne pas parcelles waa parcelles yi non non mais boo dugg see boo waxoo du too boo boo ajee doo aji. barke Seydina Muhammad boo ajee sa loxo ne waa parcelle ngaaye barke alxuraan doo aji sa loxo. dañ koy këtt de. ah ma ñëw ci mbër mbër maa ngi lay nuyu di la siyaar. maa la siyaar maa ngi bëgg ñëpp képp ku fi toog ñëpp kay. a tekari ma booy jay bi toog. Mm-hmm. di nuyu waa 20 waa 17. waa nuyu waa Parcelles quoi waa Kaas ba. Mm-hmm. waa Malika waaw comme noonu. Mm-hmm. billaahi are jàmmalaay bi fële. maa ngi ñëpp ñëpp. billaahi di leen wax ñu waajal làmb ji rek. ba le 2 novembre borom le 2. waaw mooy waajee le 2. ah kon ñu doon waajalee ba def nder. Hmm? waaw ñu ngi entraîné puis ko maa ngi bëgg na waa jàmbaar tamit waaw waa jàmbaar. koosu loto. waaw dañuy teg soog du lu metti wóor na Serigne Touba billaahi maa ngi bëggee ñëpp ñëpp. Mm-hmm. waaw di waaj la 2 novembre rek incha allah rabi. Mm-hmm. di woo Mansour Ba pour mu jàpp si combat bi. Mm-hmm. waaw mu jàpp si combat bu baax a baax. waaw di bëggee tamit tonton Moussa quoi. waaw mu ngi at Omar. at Noble waaw Noble tamit maa ngi koy bu baax. Noble maa ngi koy bu baax saa bu ma jigee entraînement moo may jox ndeket reer. billaahi waaw bo noobul. mais mais naka nga may ñëwalee ci combat bi nga xam ne moom mooy combat royal di combat Modou Lo Xarañ Lo ak ki nga xam ne moo di moo Modou Lo nekk seen patron yéen waa parcelle yi nga xam ne yéen a fi nekk di takk ngeen. waaw ñoom ñoo a xam ne làmb ji signature kese lañ ci am. déet waay ñoom xam nañ ko de. billaa walaay ñoo gën a ne làmb ji signature kese lañ am Modou Lo ko gën a def ndeer foofu. Hmm? war na Serigne Touba moo Siteu yorul bërëb bi daan Modou Lo amul. Hmm? amul Siteu yorul bërëb war na Serigne Touba. teg sama waa ji. dañuy géem la 2 Mawlo géem la 5 incha allah rabi te booy ma bëre jàmm gën la dëkk fii sa maama Lamine waaw dama koy géem incha allah rabi waaw. boo jàmm gën nga dajeeg du waaye jàmm gën dañuy xaar man jàmm falaa fa laa dëkk fa laa ñëw fii. jàmm gën xam naa falu lu baax lu xam jàmm gën moom sax xamu ko. Mhm. billaa wallaa jàmm gën fa laa maay paasal. parcelle lañ am quoi ñun parcelle lañ dëkk amuñ dara lu ñu daw parcelle kese la ñuy toog war na Serigne Touba Mbacke waaw comme noonu billaa amul ara fi da maama la ñaari baal laa lay wax jour combat ba nga dëggal sa bopp boo xeexa ma daan la boo dëmee ma daan la billaa wallaay taala boobu ñuul bi nga wax la boo demee jàmm ngeen nga wax leen boobu ñuul bi maa gën a def nder boobu ñuul bi maa gën a def nder waaw di leen voilà force. Thiès. Thiès. waaw di bëggee di bëggee di bëggee waa Kaasa waa Kaasa ñoo alaaji ay ñoo yuusu ñoo papi waaw kon noonu. mafia 37 bi waaw fàttewuma leen. ku si mel ne ay ñoo algazine ay MNR waaw. ay ñoo Papa DG ay ñoo Ibu ñoo Fallou xam ay ñoo jàngoo yéen boo yëpp maa leen bëggee waaw di woo waa Tali Ndiaga Mbaye mm-hmm. di woo gamer bi gamer bi lii sa combat la mm-hmm. waaw sa combat la yow gamer bi mm-hmm. billaay comme noonu xalaa ñaax dama bëgg waa Parcelles nañ ma ñëw jàppale war na Serigne Touba Mbacke billaay jàppale la manqué nañ ma ñëw jàppale bu hmm? maa ngi ñëw xeñ tilim billaahi bu ma ko tingee dina xam lépp la maa ko gën a wow fuuf. loolu yomb na de. billaahi làmb ji moo gën a gaaw a may xaalis te ciment bi dafa métti man kërëleur laay liggéey. Ah. làmb ji gën a gaaw a may xaalis moo tax ma bàyyi kërëleur bi dugg dugg si làmb ji. billaahi waaw di bëggee ñëpp na di woo ñëpp. di bëggee tamit William. William ak baala bu 17. maa ngi bëggee ñaa ñooñu. Mm-hmm. waaw ak Trump yenn gars yi maa ngi bëggee ñëpp la woo leen si làmb ji pour ñu jàpp si waaw comme. nan nga fas daan le deux. le bu damay damay ñëw xeex damay ñëw bëre. Hmm? ñaar yëpp laa indi soobee yàlla yàlla man lay àndal. Hmm? incha allah rabi. Modou Lo nag mu fas xam ngeen ne Modou Lo bu tamoon Modou Lo mun na bàyyi ba timis jot mu julli timis dem bëre ji. te day daan force ñëw. wóor na Serigne Touba. waaw waxaatal li nga waxoon nga ne Modou Lo. Modou Lo mun na bàyyi ba timis jot mu julli timis ba pare. dem bëre ji ñëw te day daan force day indiwaat roi maa la ko fii man maa la ko fii Siteu day xaar. day xaar Siteu day xaar lu bëri doore te maa ngi bëggee tamit waa Thiès bu ndaw booy Papis Thiès la dëkk. benn booy mbapat lay bëre quoi Thiès bu ndaw. waaw man tam bu nañ ko jàppale waale quoi booy bi sama booy la. waaw comme noonu. incha allah waa jàmm gën dama leen di géem la deux. Mhm. moo la ñoo géemaat leen. Mhm. wóor na Serigne Touba ñoom ñoo waa jàmm gën a ko moom ay géem ak dañuy xaar géemaru fii la dëkk. ay ay français ngeen quoi. dëggoo ma de géemaru fii la dëkk. la dëkk ñun waa jàmm gën jaaxaluñu waa na Serigne Touba Mbacke di woote waaye Massa église. Mhm. waaw waa Massa église maa ngi woo si combat bi sama premier maa woo ñëpp ba jour ba incha allah rabi waaw. di leen wax nag yéen ah, di leen di leen lancer benn message ñun waa parcelle ñun wéeruwuñ si kenn si Mansour Ba kese la ñu wéeru moom daa pare pour jàppale suñuy mbër moo tax ñu koy jàppale. suñu Mansour Ba yëgul woon parce que Seydina wax bi duñ ko yëg. parce que alxuraan ko daa bëgg booy yi nii yëpp. amul benn booy bu ci am combat te dul dënal bolok wala ñaari bolok barki Seydina ko dafa ñaanal gaani yàlla bàyyi ko fi ba ci kanam a kanam ba mu fekkee bañ fay ko ko incha allah Mansour Ba amuñu sa fay barki Seydina ko ñu wéeru wuñ si musala maire wéeru wuñ si kenn si yow kese lañ wéeru gaan moo loolu yàlla na yàlla defal jàmm ku la yéere pëtëx barki alxuraanu karim Mansour Ba yow wóor na yàlla jàmbaar yow yaay amuñu président kenn ku kenn kese lañ fi am muy yow barke alxuraanu karim yàlla na yàlla jàppale gaan li nga bëgg yaa xam yàlla dafa la ko gaan te drapeau bi incha allahu nga tuddee sa papa moo loolu xëy dem jëli ñëw indil la ko ko hmm? barke Seydina Mohamed hmm? drapeau Père Bala ñun dañ siy gën a xaru suñ papa lañ ko tuddee barke Seydina Mohamed papaay mafia bi Père Ba mooy papaay mafia bi si boobu teelaa la ko waxul hmm? barke alxuraanu karim Père Ba mooy papaay mafia bi wóor na Seydina Mohamed boo jee noo déggee yenn chronique yi nga xam ne ay mbër lañ nekk ci yeneen gox yi mais à chaque fois dañ naan Modou Lo nit ku baax la mooy roi bi nga xam ne moo fi nekk mais eh, ki nga xam ne moo di euh, doomi Bécaye Mbaye ji di euh, euh, Modou Mbaye moom dana d'accord ci li nga xam ne moo di mérite bi ñu jox Modou Modou xarañ Lo gars yi nañ toog seen i sambar la xaw ma fa tux seen bon hmm? toog leen foofu ngeen tux seen i bon ñun suñu nekku si yéen aha yow sa papa daa bëgg saawaay gaan moo loolu doo si jaw ah, boo koy bëgg nga bëgg boo ko bul nga bàyyi ko gaan hmm. ñun mënoo leen si Modou dërëm journaliste nga yama ci propre journaliste nekk ak sa soxna di ko bégal kese. aha san fer yi ngeen ñi fer yi ngeen ñi takk seen i nekk nag fer yi ngeen ñi takk seen i nekk di ko takk seen i jabar ko baax a baax. aha ñii ay takkatu fer lañ duñ dërëm. bu guddi gi xaayee dañuy takk fer barki Seydina Mohamed. ñii bu guddi gi xaayee ay takkatu fer lañuy doon barki Seydina Mohamed moo loolu mënoo leen si moom dërëm. Balla Gaye moom du ma la nëbb Balla Gaye ji tey jii moom su moo nekkoon jigéen barki alxuraan kay moom lay seeg ndax daa nopp Modou Lo. kan barki alxuraanu karim Balla Gaye su Modou nekkoon jigéen day seeg moom ndax nopp bi mu ko nopp yow nit koo xam ne heure boo ko daanee bëgg ko heure boo ko daanee yaa koy gën a bëgg su Modou doonoon gaan jigéen ñun amu pare laaj ñu la xaw ma cen la xaw ma laaj ñu la tax dañuy ñëw may la ko te yàlla te xam ne da nga kaa nopp Balla daa nopp Modou soo bëggee dégg-dégg bu doon xam ne Modou góor la Modou la man fuuf boo heure yow heure boo daanee Modou Modou raw la heure boo daanee Modou raw la heure boo daanee Modou raw la kon doo yem empereur empereur bi li ma lay wax carrément Balla Gaye na dem ba ci na dem ba ci menuisier bi nga xam ne moo jege biir ko ñam mu defal ko benn étagère mu jël couronne bi dem duggoo ko ci néegu bàcc buri waaw mu koy xool mu koy xool xam ne carrément li du ko jëriñoo non non kan moo ko soxla di bëggee waale dem waa inte cinq quoi digiri bi ay ñoo gërë séerage ñoo ñang baalo ay ñoo kaara ñoo Cheikh Thiam ñoo deev waaw ay ñoo saka laay waaw maa ngi bëggee ñoom ñoo ñëpp maa ngi woo si combat waa Inta 4 mhm. waaw waa Inta maa ngi lu woo bu baax ak ñoom Fallou Thieuze sama turandoo la kooku moom laa tuddee sama bopp si làmb ji mhm. ak ñoom Fallou maa ngi bëggee bu baax pour ñoo jàpp si combat bi mhm. di wax ni tamit na gars gan gën a jàpp si combat bi quoi lu ñu si jàpp xeebu ngoow na ñëpp jàppale quatre blocs laa jël nañ ma dimbal dimbale na ma quatre blocs yi yëpp bu dee deret paasal mooy daw seen deret waaw seen doom mooy bëre nag di wax Mansour Ba sas naa la ñaari bolok nga ñu jëndal ñaar waaw at per ba nañ ci ñoo ñu jàppale si combat bi suñu combat bi dañ ci war a wane suñu bopp waaw te ñooy ñëw nag incha allah rabi waaw waaw waaw salaamaaleykum ina wali yàlla waaw ñun amul lu ñuy wax maam kii la ñu yor sël bu ndaw bi xala la am na doole dëkk Parcelles Assainies 1 ba 26 nag amul inde nga ña bëgg ay bégee parcelle 1 ba 26 ña bëgg ay bégee amul inde maam parcelle léegi la dëkk mais inde 16 lay génnee di leen wax ni gaan waaw inde 16 lay génnee gaan di leen wax ni gaan lamb la dël nañ ñëpp jàpp Papis Ndiaye xaw ma Papis Ndiaye xaw ma fii da ma Lamine am ga problème bis bu la jàppee doo doo ko defati waaw man lu may waxaat nag leen léeg laa wax mooy autorité de parcelle yi ñu dëkk parcelle nañ jàppale booy bi xale la am na doole te bëgg na lu muy def gëm na ko suñ ko jàppalee mu dégg daal si làmb di woo kullukum nag Mansour Ba ñun yow lañ xam yow lañ am tamit yaa fi ne yaay suñ monsieur nangu nañ Modou Lo mooy monsieur le maire mais nangu nañ tamit mais Mansour yaa ñu war a jàppale booy bi sa la dëkk soo génnee si tali bi gis ko Papa Sow kenn du la wax xam nga booy lu mu mën jàppale ko gaan mu dégg daal si laam laama ji quatre blogu biyee lañ jënd da nga bëgg a am xaalis si laama gaan te laama ji dañ see war a prouver boo yii di def def lu sël bu ndaw bi su ñëwee am nañ problème barki sëriñ waaye ca sël cës bu ndaw bi kese li ñuy tëjee nag li ñuy tëjee mooy benn li ñuy tëjee leen kese la li ñuy tëjee leen kese la muy yow Vito yow ak say morom journaliste yi li leen wax mooy lan leena may leen ñu jàmm quoi yéen bu ngeen ñu may jàmm wóor na Seydina mooy que ça soit muy open press lu mënti am mooy loolu bu ngeen ñëwee mooy du ngeen dellu mhm. journaliste yéen ñii ñëpp laay wax ak may leen Lo xam ne daa am papa am yaay comme ngeen koy bëgg ngeen bëgg ko su ngeen ko bëggul ngeen bàyyi ko waaw mais wax jooju am na borom nag ki doon ci Modou Lo ñëpp xam nañ ko Modou la si boppam takkatu fer yi ah Modou Mbaye fer waaw day takk fer la ñii moo wax wax ju ñaaw ba pare tourné waat bëgg a defar non non. non non da doon mbalak rek nee na dafa bëggoon amul mbalak fii mbalak amu fi ku ne xam na ne fi mu far waaw yam leen na fi ngeen far open presse wala dara ku fi dugg barki Seydina boo xam ne nañ këtt sa loxo bi. waaw fa lañ yam nag. jërëjëf jërëjëf merci beaucoup ñu ngi baax baax mbokk yi nga xam ne ñu doon si en direct